def seeni mbir ba pare xool naka la ñu koy encore une fois bërëc mais haute cour de la justice dina taxaw te ñoom ñëpp dinañu wuyu benn par benn kenn du rëcc ca kaw ba ca suuf parce que li ñu def nii alalu askan woowu ñoom li ñu jël bu ñu ko delloosee ñu ragle problème yëpp ndax malgré situation catastrophique bi ñu fi fekk ñu ngi continuer di tenir réew mi dox ndax ingéniosité équipe yi ñu yore ñu leen di rendre en tout cas euh, ñu leen di féliciter di leen encourager moo xam équipe bu finance la moo xam équipe bu économie la moo xam ministère yi ak directeurs yi liggéeyu yaxanal bi nga xam ne ñu ngi koy def parce que vraiment day ñu naan nañu réduire train de vie de l'État mais ñun bi ñu ñëwee ba léegi on a fekk réduire le train de vie de l'État moo ñu permettre ñuy continuer AIBD da nga doon fekk budget voyage mais c'est extraordinaire ce que ce que ce que je de vous ca di dire dañ dañ doon fo ci alalu askan wi parce que budget voyage ci lu gàtt rek ñu def lu mat 80 millions ñun même période ca à dire premier semestre 80 millions ci voyage AIBD maanaam 1er janvier ba ba ba ba 31 mars ñun avril ba août comparé à ñoom économiser nañ ñun 55 milliards. million a millions astafurlah kon pour vous dire que ci dynamique bi ñu nekk noonu lañ ko defee ci téléphone bi ils étaient à 19 millions par mois ñu réduire ci 10 millions déjà te ça va continuer encore une fois c'est ça les vrais de débats ñoom loolu la ñuy bañ moo tax yii ñuy déposer ay recours yooyu yëpp diversion la te ma wax leen am na si ñoom ñoo xam ne gëm naa ne bëggu ñoo dem élection de ñun ñun duñu xalaatuñoo def recours parce que dañoo bëgg ñoom ñëpp ñu boole leen mbër muy nu ko doon waxee ah seen ba nee na way juróom da leen daan boole bañ mat fukk mu làpp leen dañ leen bëgg a boole ñoom ba ñu dajaloo ñi moom Dakar ak ñi doon wax ñooy chef de l'opposition ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ñooy borom fuuta tey ñu ñëw dàqatu ci liste nationale yi ñëpp la ñu boole duma dañu dañuy bëre par force ñu doon forcer seen boobu waajal seen i saak pour dugg kaso sax dañ ne leen dangeen di bëre ba pare. non day mënul ñàkk parce que mbir mi dina neex de léegi nag ñoom seen problème mooy fan la ñuy campagner ak ban xaalis la ñuy campagner. fan ah ban fan la ñuy dugg ñoom ñoom lu ñu am ci sécurité lañ ko nar a def fan lañuy dugg di campagne. di ñëw di tànqal nit ñi ak naan lañuy joxe xaalis xalaatuñu ko surveiller leen bu baax de parce que bëgguñ dem élection yi ñuy def nii yëpp loolu la kii wax na ko mais feuille A4 bi ñu ne la nañ ko def a nga xam ne bii dañ koy xaaj 4 def ci photo bi def ci logo yeeg yooyu xanaa voté du voté rek waroon nañ ko sax mën a def bulletin unique ñenn ne non du ci daal suñu yoon nekk suñu am na ñoo xam ne joxuñ justificatif de dañ ne suñu yoon nekku ci maanaam débrouillez-vous pour trouver 7 8 milliards de plus ñeneen ñi ne non dañ ciy def photo te ñun suñu tête de liste xamuñu leen waaye ñoom ñan la Macky Sall xamuñu mais problème bi mooy bëgguñu fu ñu dem gis photo Sonko mu leer nañu macha allah mu sell bi su ko defee xam na ne askan yi buñ koy jël duñ ci ànd ak sago te loolu sax mënoon na doon seen atu parce que xam naa am ñoo ne bëgg nañ ko boo xam ne au lieu ñu jël ko dugal ko ci enveloppe bi tam ñu jël ko yóbbaale ko pour teg mais pour vous dire que juste ñoom ci caaxaan yi ñu nekk mais bëgg bëre bañ bëre nii lañ ko mën a nga ñëw ci PSD bi ma doon wax fan yi weesu c'est-à-dire ñii ñooy askan woo xam ne dañoo ñëw ne dañuy leb ci turu Sénégal 467 milliards pour tabax ay tali waaye waxuma intérêt yi de mais ñoom nee nañu ñiy gérer lépp bor boobu noonu maanaam ñi ko doon geere seen ay commission ak seen ay frais de gestion cent vingt trois milliards lay doon waaw léegi ñun dañoo leb quatre cent soixante sept milliards pour fay pratiquement plus de presque 600 milliards 690 et quelque xam nañ niñ ko defee de te pour leen wan na ay tappale la frais de gestion yi dañoo ubbi beneen compte bu bees loge ko fa waaye ñuy bëgg nañ nañu réew mi 123 milliards lan nga ci mën a def c'est-à-dire que frais de gestion yi rek c'est 24 pour cent alors que en temps normal c'est entre 3 et 4 pour cent multiplié par 5 moo tax ñi tëb di wax ni ñoom ñëpp di xam nañ ni ñu def de te d'ailleurs <laughs> am na ñoo xam ne ñi amul ñi amul titre ministre commencé nañ wuy ji ak ak ak ak leeral de bu ngeen ko yëgee bu ngeen ko yégul am na ñoo xam ne nag daw nañ génn waaye dinañ dikkaat bu soobee yàlla pour vous diir que rek buñ ko doon topp benn par benn. nga ñëw di jënd matériel handling maanaam bu ngeen demee aéroport yéen ñi ñi fay voyagé chariot yi ñu utilisé keet yooyu ñi évaluer ne 8 milliards lan soxla yow ministre bi nga ne non non je vais acheter valeur bu 23 milliards déglu leen baax li may wax te 8 milliards lan soxla ci matériel waaye jënd matériel pousse pousse nga ne da koy def secret défense ñu dem ba fexe ba li jënd seen cachet secret défense ne ko ci teel. joxe ay marché fictif avance gars yi plus de presque léegi mu mat deux ans ku ci ko waroon na livrer entre trois et six mois am na si ñaar ñoo xam ne peu na livré guñu ko te jox nañ leen lu mat sept milliards marché fictif la ma tudd ko ci rajo bi xëy deux jours après ñu ne ma waa ji dawoon <laughs> am na ko mu woo naa ko bàyyi sama wax sama mu bàyyi ma man jàpp ma ko de li mu def laa jàpp c'est différent aw ma benn problème ak moom li ko mais suñu xaalis la topp enquête baa ngi en cours te dina leer nañ kon euh, lu leen wax ci tooxi doona yi ñu def un peu partout mën naa ne leen ne liñ leen waxul moo ëpp fuuf parce que nag dañu jël suñu temps di ko defar benn par benn kon euh, ci li ma bëgg a wax mooy askanu Sénégal am na opportunité cette fois-ci comme ni ma ko waxee woon fan yee euh, keroog ci jouru set setal bi système bi moom tër nañ ko ba rey ko ba noppi suul rek a des gas ba mu xóot suul système bi laa wax balaa ñuy génn naan maa wax ne damay rey nit ñi gas suul comme dañoo am léegi benn benn benn ay quelques journalistes yoo xam ne moom ils sont tellement tellement mécontents que da ngay fàtte ne sax ay journalistes lañ bu ñuy wax damay ragal ne seen kër yi day lâché mais dama ne système bi rendi nañu ko ba pare rey nañu ko suul rek moo des dama bëgg na ci législative yi na askan bi jóg wan leen ne buggatuñu sax ngeen teewal ñu ci pencum ndawi askan bu waree am ay quelques députés na doon liste yi kenn xamul mais ñii normalement waruñu parce que dañoo jàpp ne ñoom war nañu mën a daw làqatu assemblée nationale am immunité parlementaire yow yàlla sagal la nga jaar fu ne nekk président assemblée national nekk ministre de l'intérieur nekk ministre nekk premier ministre nekk président de la république walbati ba ko bëgg a nekk député waaye kii kii day sëlmëri jëmale ko wala cest diir dire que dafa am loo xam ne mënoo ko comprendre léegi nag wax ji leer na la de ndax dina ñëw campagne seen biir ñoom ñaar sax laay wax ndax dinañ ñëw campagne si wala ki exilé woon moroomam ak ki exilé boppam ndax dinañ ñëw campagne si kon euh, dama bëgg rek euh, euh, encore une fois ci fu may daaneelee ñu moi, euh, j'invite tous les patriotes. Tous les patriotes, tant il faut que ce soit opposant à multiréum. Ça veut dire que ñun xëy nous sommes les gens qui ont des gens qui ont des gens focus boobu dama bëgg ngeen orienté ko dama bëgg focus bi ngeen jël listu Pastef bi di ko seppi benn par benn di wane gars yi bu ngeen ne Amidia ngeen wax ci moom ñi ñi xam ne kii kat lii ak lii la doon def fii la jaar bu ne Mbène Faye gars yi xam fi mu jaar bu ne Cheikh Thioro Mbacké loolu mooy focus bi nañu focus ñun ci la promotion de nos excellents futurs députés gars yeneen yi nag nan leen bàyyi fële parce qu'ils ont presque tous des kër brisés kon mbokk yi foofu laa doon daaneele di leen wax ne rek euh, Euh, campagne bi dina neex te nag daa am loo xam ne ñu ngi koy waajal parce que Pastef moom la mu daan doxalee lay doxalee ba léegi mooy financement wu parti politique nañ ko daan defee lañ koy defee kon na askan wi waajal na patriote yi waajal te xam ne am na lu président Ousmane Sonko ak équipe am rawatina équipe des finance sumb ba togg ko ba pare ci fan yii di ñëw dinañ leen jox date jox leen lieu jox leen forma yàggatul dara nag ay fan la xaw ma ndax mat na ay bés wala ñaar ay bés gën ngaa bëri mais yaa a un très très très grand événement boo xamante ne nii ñu ngi koy waajal ci fan yii di ñëw te day rentre day rentre ci cadre financement wu Pastef may lancé nag défi ñeneen ñi nga xam ne ñoom it dañoo am seen ay coalition nañu wax askan wi naka la ñuy financer seen campagne waaw xam naa ne sañ euh, dinañ def lu ñu am ñi ci ñi ci dos dinañ def lu ñu am pour jéem a am dara nekk député ñi ci muus nag dinañ na lañ jote yoon mais dafa am solo parce que dafa am lu ñu yàgg a wax mooy financement parti politique ci réew mi faaw ñu xool ko parce que moom mooy sécurité wu réew mi am lu loi bi wax mu leer nañ ci financement wu parti politique ñu war ko déclarer donc ku fi yor parti politique ñu doxal at te déclarer wu yow ni nga ko financé ni nga ko dépensé loi bi ci boppam moo la éliminé moo la rayé ñoom nag daawuñu ko appliqué parce que daawuñu déclaré donte sax am na déclaration bu ñu def waaye yéen a ngi imaginer Pastef déclaré deux cent et quelques millions APR ñëw ne moom cent vingt et un la def nit ñi seen tappale geeg seen maquillage bi fu ne lañ koy def donc loolu li muy firndeel rek mooy financement wu parti politique dañ ko war a saytu campagne bi nañu xool ku ne ñu ci def bu ñu paree ku ne déclaré li mu def mu leer ñun nag ndox du bàyyi yoonam nañ ko daan financé noonu lañ koy financé waat aujourd'hui que ça soit les ministres les directeur chaque mois kuñ ci nommé chaque mois tu tires directement 10 pour cent de ton salaire moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ci côté boobu waaye li ci des askan wi dinañ leen ko wax parce que fas yéene wu ñoo laal keesu état ñun naan dañ ciy politique wala dañ ciy campagne wala utiliser ay auto état naan dañ ciy campagne comme ni ñu ngi koy defee lépp lu ñu fi indi lu bees lay doon encore une fois ci doxalin bu yees lay doon ci cadre jub jubanti jub jubal jubanti lay doon euh, kon ma tëj ak information bi rek mooy le 14 octobre bi nga xam ni euh, dinañu lancer référentiel bi ñëpp doon laaj su boobaa nag ngeen di xam ñun fan la ñu jëm te référentiel boobu ni mu ñëwee dafa am solo parce que dañoo ñëw fekk ñi nga xam ne nii dañ doon nëbb ak nëpp nëppal jafe-jafe réew mi di nax-naxanteeg ay FMI yooyu bañ leen wax dëgg nga am déficit budgétaire dix plus de dix pour cent ñëw na cinq pour cent nga am endettement bi nga déclaré 67 pour cent fekk yaa ngi ci 83 pour cent waaw gouvernement bi génn wax dëgg askan wi d'abord la ñu njëkke mooy chiffres yi amul te ñu ko doon wax ka xamuñu sax ñoom dèjà du ñu fay lempo du ñu xamuñu sax fan la chiffre jóge ñu ne chiffre amul FMI génn daal di ñuy dëggal félicité ñu walbatiku ne dina dinañu jàppale ñu ne waru ko woon a wax même Moody's note bi ñu wax dafa wàcc laataa Moody's di génn note bi ministère des finances génne na communiqué wax ne effectivement comme dañoo joyanti naturellement comme ñi fi nekkoon dañoo waxoon ne fukk lañu am fekk juróom lañu am dañoo wax ne juróom lañu am la manqué le fekk fukk lañu manqué le ñun ñëw nañu wax dëgg bi naturellement loolu kay benn case booy remplir la day calculer wu automatiquement donc yow sa sa sa euh, sa note dina wàññeeku. te loolu dañoo defaat communiqué leeral ko laataa sax mu modis di wax information bi di ko wax ñu bëri ci communiqué bi lañ ko gisee. li mu firndeel mooy dañoo ñëw ci transparence wax lii am kon ginnaaw bi ñu waxee loolu yëpp ba pare nag fii la ñuy ñëwee nag daan ne ay na yéwén fii la ñu jëmee réew mi. de manière très phasée nag moo xam deux mille vingt cinq deux mille vingt neuf moo xam deux mille vingt cinq deux mille trente moo xam deux mille vingt cinq deux mille cinquante te moo wax leen je le lance ici à tous les jeunes tous les cest dire bu ñu génn bu ñu dem fenn nañu des ci réew mi parce que réew mi dinañu ko defar ndax ñun juróom fukki at jëlewuñu fi de incha allah ay ndaw lañu. te dañoo fas yéenaa liggéey ba nga xam ne ku bëgg a wu di nga sonn de pour am argument seen bi moom ala kulli xaal bi mooy seen dernière élection tàggatoo bu ñu leen suuree ba ñu dem laa nag la ñuy taxaw xëy na boo moytuwul day mel ni parti unique moo fi am parce que yaakaar naa ne opposé ci ci mim réew dina du yombati kon ñu ngi leen di dig dajee le 14 incha allah askan wi xam bu ko defee nag eh, ñi doon laaj ñun lan mooy suñu projet ak fan la ñu jëmee réew mi ak yu mel yaakaar naa ne dinañ ci am firnde yu leer nañ kon mbokk yi ñu ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah bon apparemment y a des journalistes qui sont hors de la salle xëy na bu ñu génnee dinañ leen jéem a accordel euh, ay 5 minutes 10 minutes ku ci nekk pour des quelques interviews